ku ñëw mu faj aajaati aouzu billahi samil alim mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim allahuma salli ala sayyidina bismillah inna waliyallah wa ma tawfiq illa billah xaw na ko yaa ma bi kana sayen ñu ngi ziar ñu seetaan ñëpp waa Sénégal waa diaspora yëpp waa Sénégal waa Gambie waa Mali waa Mauritanie ñëpp rek bawuñ kenn tey ñu indi suru boo xam ne suru ruuxaaniyal ismulaayil xaniyu bokk ci tur yàlla yi di maye wërsëg bu baax a baax a baax ci fànn yëpp rek bu ko defee liñ ci indi dinañ ko baaxee aw yoon la doxalin boo xam ne su ko nit ki saxalee rek di ko def dana dana dana ubbeeku ci wàllu wërsëg euh, fayat ruuxaane li fatqi fii resqi wal xinnaa taama mooy dana ubbi ci wàllu wërsëg dana matee ci moom itam ak womal ana omle mu fil waxti da ngay koy da koy saxal ci yiw yële waxtu mu ne waxtu ban mu ne waxtul suxri aw fii sa baax وقت جل ورسوه mu ne tarzuhu risqan kasiran dana la wërsëgal wërsëgu yaatu insha allah waaw wa barakat wa barakatan kabira ak barke itam bu bu rëy bu rëy rëy rëy wa wa futuhu ajib ak ubbeeku boo xam ne ñëpp lay yéem ñëpp lay yéem li nga njëkk a def mooy nga julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam téeméer téeméer ak fukk ak benn mooy cent onze saatu faati lay doon nag allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-faatihi lima ughliqa wal xaatimi lima sabaqa naasiril haqqi bil haqqi wal haadi ila siraatikal mustaqim wa ala aalihi haqqa qadrihi wal azim moom nga njëkk a def téeméer ak fukk ak benn mooy cent onze topp ci subhanallah wa bihamdihi moom tam cent onze subhanallah wa bihamdihi cent onze topp ci yaa hanniyu yaa muhni 1111 yaa hanniyu yaa muhni topp ci ahnini bi xala bi xalaalika an xaraamika waa ahnini bi fallika xaman siwaaka moom itam onze fois ahnini bi xalaalika an xaraamika wakfini bi fallika xaman siwaaka ahnini bi xaraamika بفعل بحلالك عن حرامك أه، وقفني بفعلك عمل سواك ممتع مغرفك أو سوا سوا فرنجل جلجة ربي هب لي ملكا لا ينبهي لأحد من بعد إنك أنت الوهاب ممتع آية بوبو غرفكو 111 سوا فرنجل جلجة يا وهابو yaa waxaabu yaa waxaabu 1111 secret nga nii bu yéeme ci wàllu wërsëg boo xam ne képp koo saxoo rek incha allah lu ko ëpp solo ci wàllu wërsëg eh, ñun de gisuñu ko te turu yàlla turu set la asma wala tam xusnaa la eh, nit ki ko saxal daal di ko def suñu borom dana ko wërsëgal yooyu ma ci wax dana ko wërsëgal risfan kasiran Eh, barakatan kabira ak futuhu futuhu hajiba wërsëgu yaatu wërsëgu yaatu ak itam barke bu rëy ak itam ubbeeku bu yéeme tur yooyu rek la bu ko defee loolu itam ñu baaxee leen ko noonu incha allah yéem lu dul ku ñëw mu faj aajaati